sampub sëriñ baara mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de Mouride yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Ahmadou Mahtar Mbacké xalifa Darou Khoudoss ci kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacké xalifa sëriñ Baara Mbacké ak mbooleem njabootuk sëriñ Baara comité de pilotage ñoo yëgle quinzième édition journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2022 ci CICES ren ñu tudde ko ñaari yoo xam ne yoonu murit ak rakkam ja Serigne Afe ñu di ko yëgal mboolem buntu këri maam Cheikh Anta yëpp ak mboolem jabootuk Serigne Afe ci rendre hommage Serigne Abbas Mbacké Darou Mouhty Serigne Moustapha Massamba Baye Abdoulaye Thiaw Laye Serigne Papa Malick Sy Baye Oumar Dia Darou Salam Serigne Moustapha Absa Darou Mouhty Thierno Mamadou Alpha Sarr Oréfondé Serigne Modou Makhtar Mbacké Darou Manane Serigne Abdourahmane Mbacké Darou Mouhty Chérif Abdourahmane Fall Tilala El Hadj Modou Mamoun Fall di Ndama El Hadj